sant Ibrahima Diop bu baax a baax Kajoor production Kajoor immobilier service. Ndiaga Thiam jamono jëye passé nga sama sama commune di jooy terrain yow looy wër di jooy terrain Kajoor immobilier gi di sant Ibrahima Diop mu jàppale la comme amoo foo dëkk non booy ñaanal wër na sa tubaab bu ma bëggoon ma tàggee man ma fi am bis ma ma neexoon suba ma Ndiaga Thiam. xam nga sa mafia lan la ci man sa mafia cóngóor la ciy xar xar ah, xar xam nga xar xam nga cóngóor du traversé xar waaw nañ ko romb nañ ko romb dama ne la yow amoo sens parce que Pikine maa la fa gën a dëkk xam nga Balla Gaye numéro un sama nijaay la ma koy ziar ma xam mu bébé dafa am ak sa bopp ak njaboot maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yaa ngi may dégg di leen ñaanal yàlla bu baax yoon yàlla na leen yàlla defal jàmm Pikine dama fa bokk. jërëjëf. maa ngi dégg daa dugg si zone Pikine ñu woo ko dara allo waaye sa boy gaa ngi fi dugg na Pikine nan la waaye yéen a moom Pikine yéen itam da ngeen a moom Pikine. man maa ngi Pikine man dara kii dëkk islam yaa laa la wax dëgg dugg mën na ma wax sax gis dellu naan ay terrain affaire yooyu man damaa tëdd tey sa. taxaw leen presse bi jël leen. mais yow lu ma jaaxal waaw waaw kay. waaw ah, taxaw leen jël photo bi premier grand combat Ndiaga Thiam Boy Ndiaye Ndiaga Thiam Ndiaga Thiam Ndiaga Thiam Ndiaga Thiam ay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Boy Ndiaye jërëjëf Ndiaga Thiam jërëjëf jërëjëf jërëjëf gars yi jërëjëf ngeen baal ñu ngeen baal ñu taa bi taa bi taa bi taa bi <laughs> gars yi baal leen waay tax taxawal Mamadou Diouf baba a tante doole ba jeex seetaana rek léegi fi ah lii ñi seen combat bëggoon wax ci la Mamadou ñaari mari kaay la loo mën a dégg daal caméraman xam naa dañu bëgg a reer waaye maa ngi ciy film daa métti nag kenn du yéen les caméraman na seen jàmm yàgg waaw non xaaral Amadia dañoo bëgg fii tàng ba pare Ibrahima Diouf moo koy upp waaw moom c'est le promoteur père Bour fu mu jëm wala mbërëm lay waxal waaw wax na dëgg de yaaw waaw man daal bëgg naa li ci mën a drapeau yi ci topp yëpp yëpp du ñuy benn Burkhane Wane moom tamit di koo xam ne vraiment macha allah moom kilifa la ci royukaay la père ñu lay ziar bu baax a baax di nuyu may jàll ak may ndewaan di ñun ñu ngi fi teew muy loo xam ne jotaay bu rafet la dafa naa ne tey bu père Thiam waxee rek day mel ni lépp day daal di mat li ñu def mooy ñu dëj ko ak xam ne ni moom mooy le promoteur borom Kajoor production waaye Kajoor immobilier bu leen ko fàtte dama leen di joxaat numéro Kajoor immobilier service da ngay def 77 maam yi boo bëggee tabaxal la kër bu rafet 77 314 38 87 77 314 34 87 314 34 87 boobu mooy premier numéro Cadior Immobilier Service deuxième numéro bi da ngay def 78 240 70 66 Cadior Immobilier Service maanaam moom moo sponsorisé lamb ji ànd ak Cadior production mu mel ni kon maanaam Mamadi ah xam nga dërëm bi génnul gaal la waaw junni ak cinq mille la boole boole day daal di doon benn mën a faji wax waa Sénégal ak itam di ko jaajëf ci combat bi mu décroché waat muy Garga 2 Mama xam ne amateur yi ñoo ko doon demandé yàlla dogal mu jël ko ginnaaw bi te jàll moom mu jël ko muy combat boo xam ne ñun yàlla na waaye balaa ñuy yegg ci loolu Ibrahima day defe naa sax. leen di nuyu di leen ziar di nuyu presse bi yëpp di nuyu Dia CNG di nuyu Ndiaye ak Père Bourkhane Ndeye Diallo maa ngi nuyu ñëpp dinaa bi wax dëgg yàlla tey am nañu contentement lool ci jotaay bi bëri fi nekk yëpp di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci le 9 janvier incha allah rabbi ñu doon bés boo xam ne bésu fête lay doon ñu déglu ci ñun lépp ci lu mot sa financé bi ko waral ñun dañu nekk ci làmb bokk ci làmb yu am benn marque boo xam ne mooy petit brasser dafa am disponibilité boo xamante ne xeebuñ loolu bu ndaw bariwul lu promoteur bu am dañuy déglu ci presse bi ñu koy seet suivi bu baax képp ko soxla boo am si internet la ak ku mën a doon day toog waxtaan ak loolu te làmb bëggoon na loolu ko dundal dafa laaj ko waaw ko xam ne mi ngi ci yoon bi soo ñaanal yàlla yëpp yi nga xamante ne nag moom suñu borom yëpp yàlla oyofal yoon bi te fu mu tudd yóbbu làmb suñu borom àggale ko fa. équipe bi ci remplacé nag am na lu ñu def ci làmb lu bëri ndax bëri daanoo ñu koy bëri ba pare ba daawul jot xaalisam te ñu jógee ba ci remplacé muy docteur Abdou Sall dafa yokk ci làmb yu bëree bëri bëri bëri daf ko yóbbu foo xamante ne fu kawe la bilan seen yoon tamit nekkaat ci yoon boobu ñu koy delloo ñu ngi di ñaan yàlla fi ko bëgg a yóbbu yàlla ko suñu borom àggal ci barke Seydina Muhammad nga ñëw ci yeneen pare yi nga xamante ne ñu ngi ci biir te jottoo leen bi ak invité yi nga xamante ne invité nga leen ci suuf bi ak leneen loo xamante ne yaa ngi koy préparé euh, te li lan lay doon

lépp dañuy indiwaale bouchoir bu weex wane na ñun jàmm la ñuy woote ci làmb jàmm la ñu bëgg ci làmb tey ñoo ngi ciy invité Père Ba comme invité Vénère di ci te sax Tidjania bu président écurie Lamsar comme invité Vénère ci ci jour boobu ak ñoom képp koo xamante ne ak Aziz Ndiaye ñoom ñëpp ñoo leen invité ci jour boobu ñu nekk suñu invité Vénère ci làmb bi loolu daal la ñu amoon lu ci waajal daal ak yeneen ak am na ay surprise yu bëree bëri bëri bëri yoo xamante ne donc ci waat ci làmb ji incha allah. rawatina nag. man moom décoration bi ma si dàqal ba commande naa ci neex na ma trop waaye bu Lamine boobu moo ma si dàqal wax dëgg yàlla. waaw décoration yi tey bu gisee loolu am nga làmb boo ñëwee ci am ñoo xamante ne boo ci décoré kenn am ñoo xamante ne mënoo jël décoré ñëpp tey boo jëlee ci presse bi ci donc bénéficiaire bi kenn naa eh, ne président Babou nga ko defal. te làmb yi benn famille la ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey ku ci mel ni père bu xam nañ ko ci décoré ku ci mel ni Mbaye Diallo nañ ko ci décoré ku ci mel ni Cheikh Ndoye nañ ko ci décoré ku ci mel ni Abbas nañ ko ci décoré ku ci mel ni commandant Tine nañ ko ci décoré ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ko ci wàcc ay surprise yoo xamante ne tey jii donc dañ ko xam nañ ko ci sama te Papa Sow surtout tamit ñoom leen ci woo ci jour boobu ay invité la ci waa de leen ciy invité ñu daw ay invité ku ne ñu doxante loxo ak te xam ne lamb la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu leen nekkantey jamono ñu tuddal ñu ay doom te dafa war a rafet sport fa ëpp wala mais warul xàggale ci xam ñu leen ci dund ndax ci milieu bi parce que sport laa rek amee donc sport dafa a warul tàggale jërëjëf Ibrahima wax na wax na lu am solo léegi dañuy Babacar ñaari mbër waaw ñaari mbër yi léegi waaw waaw waaw dama xool na sama d'accord d'accord ko presse ba ma dem sur 4 janvier inshallah ci sa open press loolu la open press bi loolu la dégg ngeen ko waaw waaw waaw gars yi tëj na 3 waaye mu ñëw si ñu war la 4. rajo. rajo bàyyi la ñu woote bàyyi la ñu woote baarakal ñu ngi doon bàyyi ñu woote bàyyi la ñu si rajo ci kaw. bon maa ngi woo waa Thiaré yëpp ñoo autorité yi nekk Thiaré ñu ngi leen suñu leen njëriñ ñaar. waa Thiaré yëpp c'est comprendre. di wax loolu loolu Seydou Faye sama gars yi su ma nii ab euh, Badou Fall numéro 2 ak Aara su ma jël baat ak Seex yëpp la ñu àndoon yëpp daal. yëpp la jëlaat nañ waaj comme ni ñu daan waajee daf ñoo jaral daf ñoo jaral barki Seydina Mohamed di ko waa Thiaré ñëpp ñu jàppale ma man xale bu ndaw laa dama bëgg ñu génne waa Faaleen Sambeen Ñaange Njóobeen di woo ay say Thiaré yëpp su ma ni lamb euh, lambaay ngeesu manko ay say Thiaré bu su ma nee day jur bu may jur bëris maa ngi woo ñëpp di sant sama ménager Père Gourmand gis naa ne moom may jàppale bu baax a baax. jërëjëf gars yi kon ñu ngi tàggoo looy tàggoo rek.